jaajëfal bu baax a baax suñu téléspectateurs yi suñu partenaires itam waaye yéen ñi nekk ci suñu page Sen TV l'officiel via Facebook di ñu seetaan amuñu seen fay ay ayca ki nga xamante ni moom moo di Djibéry Sarr Niass moom dafa ne woon vous les journalistes vous êtes fautifs pourquoi vous allez euh, pas là-bas ou bien vous invitez les deux parties pour inviter les deux parties justement pour vous montrer que le professionnalisme et le le le l'information prime chez le journaliste monsieur le maire de Vélingara justement on l'a eu au téléphone qui sont très peu appelés en direct bu ko defee mu mun a bokk ci waxtaan gi journaliste liggéeyam yaakaar na ni jottali askan bi li nga xamante ni moom mooy information réew mi ngir moom mu mën a xam naka lay demee ak li mu bëgg ak li mu bañ ginnaaw moom mooy fal ak ki folli kon nag euh, booy wax noonu tamit na nga seet ñi nga xamante ni ñoom ñoo don ñoo ñoo nekk dans le corps métier euh, du métier euh, du journalisme nga bàyyi ci xel bu baax a baax jaxasewuñu kenn yeewuñu benn yoon fitna mm-hmm. te pourquoi ils se sont visés justement kenn yeewu fi fitna fitna xam nga kan moo ko yee kii luubal. ñun dénoncé rek li ñuy def et puis il y a son avis c'est libre. Mhm. mais il faut comprendre que l'information en 2020. Oui. au Sénégal. Mm-hmm. doit dépasser le cadran. cadenassé bi nga xamante ni dañ ci tënk nit ñi ñu war a xëy rek di dund noonu rek ba keroog ñu fiy jógee. Sénégal moo toll fu ñu koy defaree. domaine bu mu mënti doon. nii nu ko defee nii di ko teg mu la leer. ñëpp di xam la xew nit ñi mën ci utal saafara monsieur le maire bu duggee il va se défendre et ainsi va la vie donc loolu je pense que tey bu amee mbuur waa mbuur du ñu ngi bind di wax leen metti ci seen maire waa Louga ngi bind mhm. ak ñeneen ak ñeneen Dakar information bi yemul Dakar il se passe énormément de choses et le domaine du foncier dafa grave mhm. grave MD am na ay photo yu mu ñu war a mën a wan mhm. et je pense que le temps que maire bi di dugg war nañ ko mën a xool comme ça monsieur Mbengue étaye un peu et puis justement kooku ba tey dañuy des ci moom Pape Assane mhm. tax nee si le Sénégal brûle ce sera de notre faute alors ce sera de la faute de qui vous voulez rester dans l'inconscience studio takk takk ñëw sa kaw pour lakk la qu'est-ce que vous voulez justement ah parce que ñoom euh, ku ci nekk am nga liberté quoi wax li nga xalaat mais wax ko ci loo xam ne dina amal askan bi njëriñ wax xam ne amul benn njëriñ tu peux pas être journaliste parce que yow tu n'as pas été li ñuy wax rek nga mën a sukkandiku pour juste vous dire que ni parti ni invité euh, da nga invité nit mu ñëw wax nga invité nit mu ñëw défendre loolu mooy métier bi loolu mooy équilibré photo yaa ngoog papa voilà gis nga fii fii mooy post de santé bu Thianka hmm? bii dañ ko réservé loon deux mille sept cent soixante mètres carrés mais xam nga ne lii matul deux mille sept cent soixante mètres carrés deux hectares sept cent soixante mètres gi lii daf ko yële yëpp bâtiment yële ngay gis yëpp ci ci réserve bi la bokkoon mu morcelé ko yii yëpp def ko jaay hmm. parce que yii yëpp ci poste de santé bi la bokk léegi léegi fii fii ci ginnaaw euh, comment il s'appelle collège bi la. Mhm. mooy diocèse bi il de problème avec le diocèse. et le dossier est allé à Rome. jaar na fi mu war a jaar yëpp dem foofu. parce que dañoo affecté woon diocèse bi suuf léegi josees bi war fa def benn euh, lycée. Mhm. léegi mu jël euh, diocèse boobu mu jël place bi ñu waroon def lu diocèse mu woote conseil municipal am yi mhm. ñu désaffecté ko mais malheureusement bi ñu koy désaffecté ñu désaffecté ci turu benn abbé. alors que alors que joxe bi ci turu diocèse la nekkoon donc mënoo jox diocèse ngay désinfecté ci turu keneen. <laughs> fii mooy place place indépendance bi gis nga place indépendance ni mel. fii mooy place indépendance Vélingara. mbalit mi fii mbalit mi fii fii mooy place indépendance. nga xam ne place du souvenir place du souvenir gis nga bâtiment bi ci ginnaaw. Hmm. moom la jaay ñu def ko supermarché ñu def ko euh, supermarché benn waay la ko jaay benn privé. <laughs> gis nga fii xoolal place indépendance ni mel donc ça c'est la place de l'indépendance. voilà donc bu ñëwaatee voilà euh, bi bii toujours mooy bâtiment bi xam nga lii matul 2760 mètres carrés voilà fii mooy garage bassé réserve la woon mu nekkoon garage bassé mu génnee foofu chauffeur yi ba pare joxe foofu mhm. jaay ko fii 90 pour cent ñi fi am yëpp daf leen ko jaay mbeng yaa ngi accusé maire bi de man ngi nii c'est des preuves gis nga bii bii mooy balal bay de 1760 mètres carrés lañu réservé woon pour hôpital hôpital bi gis nga bâtiment bi mm. dans le cadre de la coopération espagnole lañ ko mhm. tabaxoon mais jaayaale ne bâtiment bi. ci yàlla jaayaale nañ ko gis nga ci ginnaaw foofu yëpp ay réserve la woon. mais euh, loolu mu doy waar sauf que Fachachi nee na monsieur Abdou il était mon il a été mon prof du CM2 il il a toujours été très honnête et nous à Vélingara on souffre sérieux car euh, la mairie defu fa dara acheter les gens avec deux kilos de sucre voilà. kii di Lamine Barry nee na moom internet bi wax loolu mbokkam xëy na ay politiciens lañ teñ dañ bokk ci ñi yili fële ci euh, mairie wu Vélingara donc euh, euh, bravo à vous je vous suis de, depuis la Guinée équatoriale merci à toi mbaa fàtte woo leen di partager nee na lépp euh, loo xamante ni moom la leen Subatel indi euh, jar naa partagé ndaxte dafa war a dasaaroo ci biir askan bi gën a yaatu il est temps de se réveiller et nous on œuvre pour à risque et péril. gis nga gis nga gis nga bii c'était une plainte boo xam ne collectif moo ko defoon.

ñi ngi dëkk ci ay kër ñu ngi dëkk ci ay kër te kër yooyu moomuñu ko. kii hmm. di Badou Thiam na vous êtes où monsieur le maire de Vélingara sortez défendez-vous on vous attend justement euh, pour euh, loolu kon nag kii nga xamante ni moom moo di papa Ousmane Diouf nee na bravo à toute l'équipe de Soubatel vous faites un travail remarquable oh, kon nag tout on doit tous se réveiller et nii rek lañ mën a yeewoo ah, maanaam ah, dindi li nga xamante ni moom moo di euh, malaanu naan li ñuy woowee sutura ah, ah Fama Ba li ñuy woowee sutura te du sutura ndaxte lii moom mais on attend le maire monsieur le maire. monsieur le maire il faut que gis nga voilà en attendant muy réagir mën nañ dem ah, ñu dem ci ñu détendre les nerfs un peu parce que les sénégalais et surtout les les la population Vélingara. yow la ñuy xaar euh, euh, vénère la ñoo xaar. Euh, moom la ñuy xaar laata rek xëy na muy dugg ci serveur bi. Papa Sane dañuy dem <laughs> déglu toute musique borom anniversaire daal di defi mëninam bu ko defee ah, rek est-ce que maire bi moo ñëw. maire bi ñëw na ayca. demaat na. dina woote waat. Mhm, mhm. woote waat donc justement. voilà maa ngi woote Fadel Ba na le maire ne va pas intervenir. si eh, si mi ngi woote mi mhm. il nous a parlé jot nañ ko. tout à fait Abdou Ba na le maire doit sortir et parler c'est grave oui c'est vrai que c'est grave. allo xam naa réseau bi la ci réseau bi la mhm. ci réseau bi la mais on parviendra à établir une belle connexion pour justement euh, éclairer la lanterne des Sénégalais surtout de la population de Vélingara ah Soxna Fall dafa am solo. am na solo torop ndax comme moom la ñu dénk te moom la ñu tuumaal am na peut-être ay arguments yu mën a défendre ak loo xam ne jëf na ko foofee ca Vélingara mu jàpp ni lu baax la na ko wax moom tamit rek. waaw ñun ñun de allo Allô Oui, monsieur le maire. Allô, bonjour. Oui. bonjour. Oui, bonjour. dalal ak jàmm ci suñu biir. Allô alo alo Allô allô man maa ñun ñoo ngi lay dégg bu baax a baax. Allô waa monsieur le maire yaa ngi ñuy dégg. naa réseau bi dafa mel ni moo baaxul. baax na. ah. <laughs> monsieur le maire mooy insister yi monsieur le maire dugal. dugal ah. Vélingara lay déglu. <laughs> en tout cas Vélingara koy déglu te nag lii dafa mattal leeral. ah lu lu lu ñëpp bokk euh, buñ ci luubal euh, wala ko tuuma di ci am dafa war a dañu war a génn confrontation bi dafay baax ñu daal di xam ah euh, éclairer nos lanternes il va rappeler très certainement waaye les internautes aussi n'oubliez pas de partager justement pour que information bi mën a mhm. gën a law mhm. ah, il est temps que suufu Sénégal bi ñuy foowee jaxat jaxate voilà le mot dafa war a arrêter ci Ndakaaru kese mi ngi dem ba ci Vélingara kon mi ngi Ndar ngi mi ngi Euh, Ziguinchor <laughs> mi ngi feneen ak feneen mi ngi Louga mi ngi Tamba mi ngi donc certainement dans la semaine on recevra quelqu'un d'autre de Saint-Louis wala de les mairies les ah, mairies man kay ubbi naa ubbi naa baal bi. ubbi nga baal bi waaw ah, vraiment ñu ngi leen di remercier parce que lii parce que lii su ngeen su ngeen ci jàppul du dem. ah monsieur le indi dina indi ñoom ñoom li ñuy wax ne ne yéen a ngi taal dëkk au contraire su ngeen ci waxul dëkk bi tàkk. alors waaw voilà su ngeen ci waxul ba autorité yi wax ci. dëkk bi ñu bàyyi farfarloo bi di teg ci dëgg ak ci dëgg mm-hmm. yëfi askan bi moom yàlla dafa mel ni coronavirus dafa ñëw rek di weer lu dul fi nekk yëpp jot ñu ne bu mu reyati waaye nay feeñal yii rek yii moom bu bëgg naa ko mais internet yi tamit amuñu seen fay te ba tey ñoom ñoo ngi contribuer monsieur le maire ñoom nee eh, réseau bi baax na <laughs> monsieur le maire nangul dugg waaye nag moom dina dugg waay réseau bi la réseau bi Mm. sans aucune autorisation. ne. 8212 parcelles. a été euh, sans autorisation. 8212 mu bëri na di en 2005 3950 parcelles en en 2016 2012. te ñu ne moom dafa am ku nekk ci gannaawam. dafa am ku nekk ci gannaawam parce que yii muy def sans autorisation lu toll di préfet dem guddi ay bor. Hmm. benn ministre woo ko ne ko dellool bor bi. yow xamoo ku nekk ci gannaaw. non ministre bi xam naa mais xam nga rek. bon hmm. hmm. bàyyi loolu su bàyyiwul su <laughs> mais dina dina fay ah mais bien a réveillé euh, tous les Sénégalais bravo macha allah merci beaucoup ce sont les propos de Mouhamed Diop Mouhamed nag lii rek nga mën a wax nag ndax Khadija ak Mouhamed moom. dañuy dañuy nangulante merci beaucoup à toi justement askanu Sénégal daf ñu ñor surtout ñor nag des médias et toute l'équipe de Sen TV ñun dañuy bëgg rek saa yu ñu xëyee rek mbir di leer euh, on dénonce rien mais ku deful tamit du du ñu am lu ñuy dénoncer ah Papa kon nag ñii dafa war a bàyyi di def bàyyi leen di def monsieur le maire euh, monsieur le maire on vous attend on vous attend toujours on attend votre retour parleur teg ko ci Mamadou Wuri Baylo Diallo ah monsieur le maire euh, ñu ngi laa xaar mais une chose est certaine nanu sant borom bi Sénégal mm. parce que yàlla dafa àppal lu ne Mm. te lépp lu lëndëm dafay leer. Mm-hmm. donc fii Sénégal Sénégal wax nañ ñu ba tàyyi ni Sénégal ku ko nar yàq. yow yaay am eh problème donc eh nañu nañu nit nag matul. Mm-hmm. mais nañu def mu rafet et ñu ñu am na loo xamante ni bu xewee ci dëkk loo xam ne nga bokk ak ñëpp mais nañu ko rafetal ñu jaarale ko yoon ñëpp am. parce que ñëpp war a am aussi. ñu bañ a xalaat seen bopp kese di xalaat tamit askan. on mais on ne peut pas tromper tout le tout, temps. tout à fait Paasan kii di nu mu tudd te euh, Babo Camara nee na Paasan Asma su ko Macky di woo maanaam le président